boppu suuratul muzammil saar wi dafa tàmbali rekk am sababu nusool sababu nusool bi mooy ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama bi mu dencee suñu yaay sayyidatuna Khadija fekk mu nekk jigéen gi ëpp alal ci màkkatal mukarrama mu xamal yonantu bi ne ko li ma moomoon lépp tey yaa ko moom moomatuma dara maag li ma moomoon yëpp yaa ñu bokk moom ñu jigéen gu baax noonu lay def yonantu bi ne ko tamit li nga moom soxlawuma ci dara lu dul loo may walal mburu ma koy def ci sama mbuus di dem jabalu nuur di fa wéetal yàlla ku dem màkk ba gis montagne booba nu ki daan yonantu bi yéegee sax yow dana la yéem loo mën a mën a yéeg boo déparé woon ki suuf bala ngaa yegg foofa danga def waxtu booy wàccaat da nga def waxtu soo mënul yéeg moom boo amul sens sax danga nga far daanu léegi naar ya dem nañ ba installé fa courant di fa jaay ndox mu sedd ak ay boisson di fa jaay ay ñam foofu la daan toog nag moom di wéetal yàlla foofa la nekk ba ni muy amee ñeen fukki at malaaka mu ñu tuddee Jibril ci ndigalal suñu borom di ko fa fekk di ko indil quraan ba mu njëkkee ñëw day dégg kàddu ga waaye du gis jëmm ja mu jigi mu mel ni dafa gis jëmm joo xam ne mi ngi ci kaw asamaan mu teen seen ko mu ne ko jàngal yonentu bi ne ko man duma jàng ndax bokkuma ci famille boo xam ne dañoo donnu njàng mu ne jibril njett ko waxal na boppam ne ñett-ñett yi ma njett benn bu ci nekk foogoon naa sama roox gi dana ci génn ci la départ nag dem ci sayyidatuna Khadija ne ko nag zëmmiloo nii sàng leen ma ñu jël mbàjj yaag yére sàng ko ko mu ne ko ba léegi daal li ma jàppoon bàyyiwut ma Xadijatu ku yee la ku muus la mu ne dégg naa de ñu ne malaaka du gis awraay nit rawatina jigéen te jigéen jëmmam ji lépp awra la bàyyil ma fuq sama musóor gi bi mu fuqee musóoram rek mu ne ko dem na gisatuma yëgatuma bu delloowaatee musóor gi rek mu ne ko ñëw na ci la nag sayyidatuna Khadija yëg ne lii dikkal sama borom kër gi nekkul jinne waaye malaaka la mu bëgg lu gën a wóor ku jàq ci rek seeti maaman yi dem seeti benn maam maaman boo xam ne am na lu ëpp téeméeri at di war a xatum nawfal ne ko sama borom kër de dafa ñëw ànd ak daladi mi ngi wax loo xam ne daanul ko wax mi ngi yëg lum daanul yëg mu xoo ko mu ñëw mu ne ko waxal li ngay yëg li ngay gis ma dégg ba mu waxee ba pare mu ne ko kii li koy dikkal mooy haza naamuusu Muusa sekkare ba daan dikkal yonentu yàlla Muusa ci moom la ñëw kii nag mooy daytale yonentu yi gannaawam beneen yonentu dootul amati foofa nag la jooy moom maanaam waraqatu ne yellante woon na bis bu ñu lay génnee dëkk bii nga juddoo say maam juddoo fi say baay juddoo fi ma nekk sama digg kartan défendre la yonent bi jooy ne ko dañ ma génnee mu ne ko li nga indil sa nit ñi kenn mosu ko indil aw nitam te génneewuñ ko foofa nag la ko xadijatu ne ko dellul ca daara ja métti ne waaye mënoo ñàkk a dem delluwaatal bu la waxee ne la jàngal nga ne ko lan laay jàng bu la waxatee jàngal bu ko wax du ma jàng ne lu ma jàng nag lu may jàng ba mu ñëwee ne ko jàngal nag lu may jàng rek ci la ne ko nag iqra bi ismi rabbika alladi xalaqa xalaqal insana min alaq kon luñ ñaari yëf déggee nañ ci ne soo amee doom mu dem ca daara ja bu daara ja méttee ba mu daw bu fa fekkut kilifa gu mat kilifa rek njàngama yàqoo fa waaye fu mel ne yonent bi daara ji métti na mu ñëw ca kër ga bu fa fekkutoon jigéen gu mat goo xam ne dafa soppeeku félicitaire ñeexal jëkkëram bu tàngee ci biti war koo seddal ah li ko noon njàng dana doy war waaye da koo dalal ba mu sedd ne ko nag kaay delluwaat ca daara ja kon tamit ñun ñu yàlla natt ñu yorey doom ñu nekk ca daara yi di jàng daara moom benn bis rek ca neex mooy bis bi nga xam ne ki nga doon jàngal mokkal na waaye bu ko mooyee la ca des yëpp coono la nañ muñ coono yooyu te xam ne lay suñ doom yooyu wut buñ ko amee danañ fàtte coono yëpp waaye kat teraangaay àdduna ak àllaaxira kenn mënu ko am ci noflaay kon nag nañu nañu muñ yenn yenn xiif ya nañu muñ yenn yenn mar ya nañu muñ yenn yenn rafeel ya nañu muñ yenn yenn dóor ya ndax kat daara sëñ Ahmed Sakhir Lo yal na yàlla yokk leeram dafa daan wax ne daara daal li koy yàq rek mooy ñàkk a waaye xiif ak marak tilim ak yooyu yëpp du ko jàng du ko yàq waaye ñi xëy ñu ne ndongo ya jëluñ darsu rek loolu mën naa yàq jàng waaye lu du loolu rek mën ta yàq daara na waajur yi delloo seen xel yi ci seen doom yi nga xam ne sa doom ji boo ko bëggee ba xeñ ko daara ne dañ koy jooyloo nga bañ koo xeñ jooyi ndaw ya bu màggee moom moom lay jooyloo te doo ca man dara ku bañ sa doom jooy ci ndaw su màggee jooyloo la doo ca man dara lu ko ca mën a dal gëm ko te nga doyloo ko ne yàlla te yëg ne nit ku ne fa mu nekk rek la ko dal foofu la koy mën a dalee waaye ñi ñi pare pour jàngale alquran yore ay daara sonn coono bu nekk ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy dund yoo xam ne mënuñ koo wax boo ko séqee ku xamul dara nag coono ba gën a méttati waaye looy defal bu métti lu métti métti ki nga ko séqa bu ko rek mu mujj woyaf kon nag kenn ku ne la ngay wut soo ko amee mu woyaf jël nañ suñuy doom dugal leen ñi jàng karaté léegi-léeg ñi damm seen bëñ léegi-léeg ñi damm seen loxo waaye bis bu ñu demee ba am ceinture noire rek ñi fàtte ko léegi-léeg ñi jël suñuy doom yóbbu leen ca kaaya ñi leen di entraîné ñi war a nekk ëllëg war a mën a yore sécurité réew mi ñooñe coono bu leen mën a dal boo lëggee bu ñu nekkee ay sénéroo rek ñu fàtte ko demeet la ca des des na kon tamit ka nga yóbbu sa doom je muy daara lu ko mën a dal foofa muñ ko te xam ne nit ku ne fa mu nekk la ko nekk foofu la koy dalee bis bu demee ba mokkal alquran nekk boroom xam-xam bu boobaa coono bu mu mënoon a am dana ko fàtte waaye kon nag teraanga kenn mënu ko am maanaam ci noflaay kon nañu gëm loola kon gis nga xadijatu jàngal na parents d'élèves yëpp ni nit ki war a nekk ak njabootam euh, bu nekkee ci foo xam ne dafa fay wuti teraanga ndax jamono ji nañ yëg ne parent yi kat ñoo nekk ca kër ya di jàngalu waaye ñooy jàng buñ sàgganee seen jàng ma seen jàng yàqu boroom kër yu bari tamit nañ yëg ne seen doom ya ñëw bu ñuy sëy buñ jàpp ne ñoom ñooy sëy nañ jàpp ne ñoom ñooy say ndax buñ ca dugalu seen loxo rek seen sëy ba yàqu kon am mat kilifa gu mat kilifa day dimbale nit waaye boo amee kilifa gu manqué kilifa lum ñëw wax la nga gëm nangam ak nangam nga ne tay ma dem faji ko doo ci amee ndam te li nga bëgg tamit du am kon loolu jàngee nañ ko ci laaye ji déggin wi ba lañ koo firi waaye tamit déggee nañ ca ne soxna bu matee soxna mat mat soxna pire saa yu borom këram tàngee ca biti da koy seddal waaye du ñëw fekk borom këram tàngee ca biti mu koy gën a yokku tàngoor loola baaxut nekk foo toll jëndal ma frigidaire te yow ci sa bopp yaaroo yaaraw fuur boo xam ne yaa ngi tàngal sa xolu jëkkër kon lu frigidaire bay jariñati xadijatu nag sayyidatuna xadija dafa fexe ba nekk di frigidaire sayyiduna muhammad fexe ba nekk di kilimam saa yoo xamee ne tàng na ca biti rek mu seddal ko ba mu fàtte tàngoor wa kon jigéen gu mat jigéen mat soxna dëgg-dëgg bu nekk ci gannaaw góor lu góor ga manquém nga manqué du feeñ dama koy wax toujours ne góor lu mu yaafus yaafus lu mu yambar yambar bu amee jabar ju baax yaafusam nga ak yambaram nga du feeñ waaye góor lu mu farlu farlu lu mu nangoo nangoo liggéey lu mu baax baax bo amee jabar ju bon yam nga ak farloom ga tamit du feeñ kon nag wara a kulli azimatin wara a kulli aziman azima la yaaram yi wax ñu ne nekk nañ nekk na ci gannaaw góor gu baax goo gis dafa nekk ci gannaaw jigéen gu baax waaye bu nekkee ci jigéen gu manqué rek du mën a feeñ kon aaya ji loolu lay wane bopp bi ñaareel bi mi ngi jàngale ni yonent bi war di naafila guddi naafila guddi farata la ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamee ne ñun ñiitu subaar tàkkusaan santimis gexe noonu la nekkee farata ci ñun yàlla nag tànnaloo ko ci naafila ne ko bu la neexee nga xaaj guddi gi ñaari xaaj naafila genn wàll nga bu la neexee nga xaaj ko ñetti xaaj nelaw ñaar ya naafila genn euh, ñetteelu xaaj ba bu la neex nga xaaj ko ñetti xaaj naafila maanaam euh, ñaar ya nelaw benn xaaj ba bu ñetteel ba muy sulusaani ba loolu na da ko cee tànnaloo boo ki def baax na waaye ñàkk naafila mënta nekk ci yow dafa xaraam ci yow moo tax daana naafila ba tànk ba di néwi du ko mën a taxawati mu teg ko ca moromam ma yàlla ne ko déedéet taaha ma anzalna alayka alqur'ana li tashqa léegi-léegi mu jug bëgg a naafila jamono ji neexee hutoon comme nii kër ga dara du fa nekk ndax toog na lu mat weeru lëmm sayyidatuna Aïcha ko nettali ne kër sama borom kër weeru lëmm cin tàkkut ñaar yu ñuul yi dong la ñuy dundee ndox mu ñuul ak tàndarma jéegée nag jigéen ñi léegi ko fi toog ñetti fan cin tàkkut mu seeti yaayam su ko defee bu yaay jëmatul yaay baay jëmatul baay mu tas sëy ba kon ak ak ànd ñàkk waru koo yàq gore hadi rek ak ñaaw jikko wooku moo ko waroon a yàq waaye ñàkk warta yàq ànd ak gor su ko defee tamit nag euh, mu toog bëgg a naafila kër ga ci tàkkut taaluñ añ taaluñ reer mu jël ay xeer yett ko ba mu tolloog euh, maanaam legg ya mu takk ko ca ngir mën a taxaw naafila kon yow mi nga xam ne nag yàpp nga reeree naan sa boisson bi bëgg a tëdd nelaw tamit dëgg-dëgg doo am foo ko teg ndax santoo yàlla kon kon naafila guddi baax na ba ko yàlla farataale saxaaba yu bëri di ko ca roy yàlla ni genn wàll gi laa wax di ñoom amuñ montoor mënuñoo xayma léeg-léeg nit naa fi la jàpp ne genn wàll gi jeexagut ba bër set far mu ne leen ñetteelu xaaj bi léeg-léeg ñetteelu xaaj bi du mat nga dem nelaw munuñ koo takk mu jigi nag yàlla xoyofal ko ca jeexeelu saar wa ne faqra'u ma tayassara min alquran ulama wu tafsir dañuy wax ne gisuñ ci alquran benn suura boo xam ne tàmbali waayu saar wi mujj ak saar wa moo ñëw folli ko tàmbali waaye saar wi yàlla da koo follee ca mujj ak saar wa mujj gi ne waaye naafile leen li ngeen man rek lu ngeen man rek man yàlla xeebu ma ko soo jullee sa gee nga def ñaari rakka bul xeeb baax na soo defee ñeent muy ñeenti sëlmal baax na soo defoon fukk nag door indi shafaag witar muy fukk ak ñett mu gën a baaxati ndax yonentu bi weeru koor ak lu dunul weeru koor mosta tëdd mukk lu dul dafa naafile fukki rakka ak shafaag witar muy fukk ak ñett léegi-léeg bu mu def juróom ak safaak witar muy fukk ak benn ñaari riwaaya yëpp wér nañ benn bi sayyidatuna Aïcha moo ko indi benn ba euh, maanaam boo demee ca maanaam benn bi euh, Ibnu Abbas moo ko indi kon ñaar yëpp wér nañ boo ko bëggee dëppale nag ngay wax ne bu xatul rek mu def fukk ak ñett bu xatee rek mu def maanaam fukk ak benn kon noonu la daan naafila dundam gi yëpp ci lool ci loolu maanaam ci la ko ci la ko ci la ko jeexal naafila nag moom la yàlla di wax ci nii ak ba mu bàyyeekoo ca jabalu nuur ñëw ne sàng leen ma sàng leen ma yëg naa lu ma yëgutoon man sama borom daal dama foon daf may toroxal di wax waxam yooya di xadijatu ne ko xaw ma ku yàllay toroxal waaye du doon yow kalla mallaahu yuxsika dëhran anta lid dayfi wal xuquqi wafaau jikko yi ngay ràngoo di ko daagoo du nekk ci kenn mu koy daagoo di torox kon ci lañ déggee ne ndeke jikko ju baax ak mbaax doy na gàllaaj gàllaaj yi ñi gàllaajoo yëpp bi ci ëpp doole mooy mbaax soo xasee mbaax rek lu ñëw ñi fexeel la ko dana la teggi moo tax xadijatu ne ko xaw ma ci yow dara lii ma mën a assuré mbaax gi ma gis ci yow du nekk ci kenn muy torox ba pencam yàlla doo torox waaye tamit li wax dëgg la kon nag aaya yooyu lay wax si saar wi ñaar fukki aaya la téeméer ñaar téeméeri baat la ak juróom ñett fukk ak juróom deux cent quatre boo jëlee xaraf yi juróom ñetti téeméeri xaraf la ak fanweer ak juróom ñett saar wi nag mi ngi wàcc euh, boo ko jëlee gannaaw suratul qalam maanaam euh, suratul alaq bi alaq wàccee rek saar wi moo ci tegu bokk na ci saar yi njëkk a wàcc maanaam ci alquran yàlla nag di ci jàngale na yonent bi ne nañ ko sàng yàlla ne ko sa mbir mi sàng du ko jariñ sàngeekul yaa war a sàngi xolu ñu sàngu kon yow boo sàngoo du sotti faaw nga sàngeeku mën a sàngi xolu ñi sàngu waaye tamit euh, del naafe la guddi ci ngay mën a jëlee sa batterie bi comme da ngaa bëri looy jokkoo bëccëg ku bëri looy jokkoo ba cëg ngaa war a fanaanee sar sa portable bi mu mën a fees boo xëyee bëccëg bi yëpp ngay jokkoo nga xam ne du mën a vidd waaye boo fàttee sarse rek bu bëccëg bi ñëwee rek nga am problème yonentu bi nag yàlla ne ko koom nag julli mbooleem mbindee fi seen batterie dafa vidd te yow yaa leen wala sarseer kon fexeel nga jéem a sarse ci guddi gi dinaa fi la guddi kon nag képp koo xam ne dañ lay roy ci diine di la déglu wala ñi lay roy war ngaa fexe ci guddi gi jotee ngay jaamu yàlla ndax nga sa batterie bi mën a fees bu bëccëg jotee nga mën a jokkale nag ñi nga xamee ne nii timit sa digganteeg yàlla yow lañ fa doxale loolu lay jàngale nii moo tax mu ne bisimillahi sos na ma sama wax ci turu turu buur bi arrahmaani buur bay xewalaakoon bépp mindeef ci àdduna bi arrahimi buur bay xéewal ku ko soob ci àllaaxira yaa ayyuhal muzammilu hee yow aji sàngu ji qum jugal qum na nga naafila àllay la guddi gi illa qalilan lu dul lu naafilaal guddi gi lépp lu dul lu néew mu badal ca ne nisfahu genn wàll ga laa wax naafilaal genn wàll gi nelaw genn wàll gi awun xus wala nga wàññi minhu ca genn wàll ga xalilan lu néew walla nga jël guddi gi def ko ñetti xaaj ñaari xaaj yëpp nga nelaw ko eh, sulus ba di ñetteelu xaaj ba nga naafi ko wala sax aw sit wala nga dolli alayhi ca genn wàll ga def ko ñetti xaaj ñaari xaaj yëpp nga naafi ko benn dégg nga benn xaaj ba nga nelaw ko moo tax mu ne ko war a tilil na nga teeytu sa njàng ci rafetal quran alquran tartilan ak teytu sa teytu ci alquran di ko jàng na njàng ma rafet ta teey inna naka ñun yàlla sa nulqii xal si nañoo sànni alayka ci yow xawlan wax thaqilan ju diis inna naashi'ata layli naka naafila guddi gannaaw bi nga bàyyeekoo ci nelaw hiya moom ashaddu moo gën a tat wat an ci dëppoo xel ci làmmeñ wa aqwamu moo gën a bir xiilan ci wax kiilan bi maanaa xawlan inna lakka lu tax boo gisee naa lay naafila loo inna lakka aji nekk la ñeexal la fi nahaari ci bëccëg bi sabxan ak féey sabxan ak soppandiku tawi leen gu guddi li ngay jokkale ci guddi gi dafa bëri da ngay jokkoog nit ñi di jokkale kon nag demen nga sarse sa batterie bi ca guddi gi li ko may du sotti wazkur na nga tudd isma rabbika sa turu borom wa tabatil nanga nga maanaam dogu ci jaamu ilahi jëm ci sa borom tabtilan ak dogu rabbul mashriqi moom mi nga xam ne mooy borom fenku wal maghribi tay borom soxu laa ilaha mu benn bur illah wa ndare moom fattaxisu na nga ko jàpp wakiilan mu nekk kuñ wakil say mbir yëpp wasbir na nga sax ci muñ ala maa yaqul li nga xam ne ña ngi koy wax ñoom xéeféer ya wahjurhum na nga tong leen hëjëran ak tong jamilan gu rafet kon gis nga ko digal na ko mu naafila guddi aw aw yooyu yëpp aw taxiir la tànnaloon nañ ko diggante daal nisif walla sulus wala sulusaani si lañ ko tànnaloo bu la neexee daal genn wàll ga nga naafila ko bu la neexee nga naafila ñetteelu xaaj ba bu la neexee nga ta naafila ñaareelu ñetteelu xaaj ba ñetti boo ca def yàlla gërëm na ko ci la yonent bi nekk nag ba nim génn àdduna mosta bàyyi naafila guddi ku bëgg a bokk ca ñay dabi ku bëgg a bokk ca ñañuy dabi bañ a bokk ca ñay dabi tamit waroo bàyyi naafila guddi ndax ci def farata yi ci la ñu nekkee jullit ci matal naafila yi ci la ñu matee jullit kon def farata yee tax nga nekk jullit matal naafila yee tax nga mat jullit kon ku bëgg a mat da ngay taxoo maanaam naafila yi te naafila yi tamit baax na lépp lu manqué ci suñ farata yi mbaa ca ñaaw su ëllëgee yàlla ñu koy sofalee ci suñ naafila yi waaye loolu nag am na solo lool waaye ku ne ci farata rek laay xem liñ la sant boo ca xemee bu yàggee nga manquil ko te kuy kuy def naafila dana dem ba farata woyof ci yow koo xam ne balaa tusubaar ñëw nga gàttandoo ko ñeenti rakka boo jullee farata ak naafi farata ji rek dafay oyof ci yow ndax li nga bàyyeekoon boo sëlmale tegaat ci yeneen ñeent nga dem tusuba tàkkusaan ñëw nga gàttandu ko ñeent bu tàkkusaan ñëwee dana oyof ci yow timis ñëw moom duñ ko gàttandu loolu la imaamu Maalik gëm su paree nag nga gunge ko juróom benn rakkaa di ñetti sëlmal euh, njëkk gee nga def ñaar muy ñaari sëlmal gexe ñëw nga jël ko su paree nag nga door a def fukki rakkaa door a indi ak safaak witar muy fukk ak ñett lii daal ku ko man nekk na lu baax fajar ñëw ñaari rakkaa ya euh, bu bu bi yëkkati ko nga def fay nange juróom benni sëlmal di fukki rakkaa ak ñaar mbaa juróom ñetti sël juróom ñetti rakkaa di ñeenti wala sax ñaari sëlmal ba ñett loo ko def rek maanaam yàlla fay la loolu lépp lu baax a baax a baax la ci ngay door a mën a matee ab jullit piir nag loolu kon kenn ku ne war na cee góor mu teg te nag na inna nachiata layli euh, nachia borom xam-xam yi dañ cee wuutee naafila guddi gi yàlla ñu ne naam naafila nachiata layli boo koy naafila ci lay sa xel mi fekk lépp suuf dal ci lay sa xel mi door a gën a mën a dëppoog sa làmmeñu li ngay jàng ci ak teewlu ndax fekk lépp dal na nachiatu googu nag waxtu wa dañ caa wuutee Euh, Abdullah ibnu Mulayk nee na man laaj naa ko ibnu Abbas laaj naa ko tamit maanaam euh, ku ñuy tuddee Abdullah ibnu Subayru man laaj leen na leen waaw naasiatu gi alquran wax moom ban heure la euh, ñoom ñaar ñu ne guddi gi yëpp naasi ala guddi gi yëpp daal loo ci mën a naafila rek yaa ngi ci naasi atal guddi gi yëpp fi nga julee gee ba fajar di xaree foo ko fi ma manee rek baax na loolu la ko ibnu Abbas tontu waaye ku mel ne sayyidatuna Aïcha moom ni ko inna naasi'ata layli mu ne mooy da nelaw ba pare yeewu fekk yaa ngi yeewu ay 3 heures wala nga yeewu ay 4 heures wala ay 5 heures mooy fekk nag suufa ngi dal ñu sàggan ñëpp a ngi nelaw nga ànd ak teelu nag di naafila xam nga foofa sa xel day gën a dal fekk sa yaram wi tamit diis gi ci nekkoon woyof na moom Aïcha loolu la firee atu mooy gannaaw nelaw ah, loolu loolu la gëm Zeynul Abidina di sëtu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, moom eh, naasi'a moom dafa koo jàppee diggante timis a gee moo tax moom bu julliwaan timis balaa def gee rek ci lay naafila li mu bëgg a naafila bu jullee gee def safaak wi taram dem nelaw kon kenn ku ci nekk noo ko noo ko mënee rek noona la kon boo ne guddi gi yëpp foo manee ci guddi gi baax na euh, yonentu timit ni mu ko firilee Seydina Aboubacar ak Omar dañoo ñëw ci ñoom ñi kalaame ñu ne Aboubacar moom bu jullee gee rek day gaaw naafila li mu bëgg a naafila lépp ba safaak wi tar dem tëri Omar ibnul Xataab bu të bu julee gee rek day dem tëri bu xaaree ba ay 4 heures mu yeewu door a naafila door a julli safaak witar bañ leen kalaamee ci kanam yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama yonantu bi ne Aboubacar li nga def moo gën a wóor Omar li nga def moo gën kenn du yonantu bi ñooñ moo mën a fekk ñaar ñu jotee wala ni mu leen attee rek li mu wax moo gën a wóor ndax xam nga mën ngaa tëdd nga biddanti jàll kon nag nga julli li nga war a julli yëpp door a tëdd moo gën a wóor waaye nag bu la wóoree da nga yeewu nga bàyyi nag ba côté 4 nga yeewu commencé naafila nag foofa nag la gën moom dañ la koy fulel mu gën a am doole euh, waaye xalaa kulli xaal euh, boo bokkee ci ñi nga xam ne daal bu jant bi soxee rek seen bët ya soo ah boo julee gee naafilal dem tëri moo gën a xóor su la yàlla mayee nga yeewuwaat ci diggante bi muy sa bénéfice bu la fekkoon nga witar ah naafila waatal loo bëgg nag ci guddi gi waaye bul witaraat ndax yonent bi ne na laa witaraani fi naafila li nga bëgg a naafila boo paree nga door a def sa witar kon loolu tamit dal na xel naafila daal jëlaale avance bu baax booy tëdd yaa xam boo yeewuwaatee dolli soo yeewuwaatut fekk la nga waroon def ca dog ba yow def nga ko ba pare kon loolu tamit baax na kon kenn ku ne ak ni nga ko déggee kon loolu mooy kon aayaat yi nee na ko inna sa nulqi alayka qawlan thaqilan yonentu laaj nañ ko wax yu gi num daan ñëwee ci moom mu wax façon ya wax bi ci gën a métti nag mooy boo xam ne day mel ni salsalatal jarsi ay weñ yu ñuy dóor boobu bu ko fekkoon sax ci sedd dafay mujj ñàkk tooy xet bu ko fekkoon ci géléem mu war ca da nga gis géléem nga di lox di lox ba rëppatalu ndax munta a attan maanaam diis ak wax ja kon lu diis la ñenn ngeen ne innaa sanulqii alayka qawlan saqilan gi daal alquran lu diis la ci munaafiqiina yi lu diis la ci xéeféer yi waaye nag lu xooyof xooyof la ci jullit ñi kon ñii dañoo jàpp ne euh, maanaam saqiilan ji ña ca nambu jëfee ga euh, ca ca ca munaafiqiina ya ak euh, kaafiriina yi ñu ne saqiilan ja mooy jamono ja muy wàcc ca waxyu ga ndax salsalatul jarsi googu nga xam ne lu metti woon la ca moom kon mu fasiru ne kenn ku ne ak ni nga ko déggee boo demee ci tafsiru xaasin dana la indil ñaari version yëpp aaya ji tegu ci nag moom maanaam mi ngi dal ci kaw sanaadiidu quraychin yi sangi quraysh yi dañ fa nekkoon di bàkku ci kaw yonent bi liñ am ci alal am ko ci teraanga mënuñoo torox yàlla wàccee aaya ji ne ko yonent bi baa ma ak ñoom danaa leen toroxal de xam nga léeg-léeg koo téyewul ne ba ma te fekk téyewoo ko sax bàyyi ma ak moom rek te fekk pourtant téyewoo ko arab day waxee noonu nag yàlla ne yonent bi bàyyi ma ak moom te xam nga ne yàlla yonent mënta téye yàlla moo tax mu ne ko wazarni ni bàyyi ma wal mukazibina ak way weddi ñi uli naamati ñay borom yi xéewal wa mahilhum na nga ndànku leen xalilan lu néew danañ xam ne inna la day naa aji nekk la fa ñun an kaalan ay jéng wa jaximan ak safara wa taaman ak ñam daa xusatin bay borom ak fatta mooy saquum wa azaban ak mbugal aliman bay borom ak méttital kaañ la mun a yow ma tarjufu bis boobu dana rëngi-rëngi al ardu suuf wal jibaalu ak doj wa kaanat mujj aljibaalu doj yi kasiiban di beeñ mahilan bu gebbeeku innaa naka ñun yàlla arsal naa yónni nañ ilaykum jëm ci yéen waa makka rasulan yonantu shahidan muy shahid muy aji seede shahidan muy aji seede alaykum ci yéen kama arsal naa comme lañ yónnee woon ilaa firawna jëm ci firawna rasulan ndaw fa asa mooy na firawnu firawna ar rasula ndaw loola di sayduna Muusa fa axasnaahu mbugal nañ ko moom firawna axsan ak mbugal wabilan gu tiis fa kayfa tattaquuna naka ngeen di mën a teetee yéen waa Makka yéen ñi weddi in kafartum bu ngeen weddee yow man bis na ngeen ko mën teetee bis ba nga xam ne yaj'alu dana mujjal wil daanu xale ya shiiban ñuy way ba jaaw ngir ak tatak njàqare asamaawu asamaan mun fatirun borom ma xotteeku la ca bis boobu kaana nekk na waxduhu dëhalab yàlla mafulan di luñ def de kon bu ngeen fi weddee yonantu bi comme ni Firawna weddee woon Muusa bis bi nga xamee na nii maa ngi préparé samay jéng ci yéen taxalaale safara ci yéen am garab goo xam ne mooy nekk seen ñam muy saxoom bu ngeen ko lekkee mu takk seen bële gi du jàll te dootul mën a demati loolu nag moom laa leen di xaaree te su boobaa danaa leen danaa leen mbugal ci mbugal mi yëpp ni ma mbugalee woon Firawna ba mu weddee Muusa waaye nag mënu leen a mucc ci mbugal moomu su ngeen weddee fa kayfa tattaquuna in kafartum bis bi nga xam ne buñ ca yeggee njàqare ga bu fekkoon xaleel bu ndaw mën na koo tax a bee jaaw ndax njàqare day tax a béjaaw day tax teela teel a béjaaw léegi nga gis ñoo xam ne 40 ans lañ am fekk béjaaw nañ ñi 35 ans mooy coono dund ci coono ak dund ci ay naqar ak ay jafe-jafe ku koy def rek sa béjaaw dafay gaaw euh, yàlla nag waxee noona waaye foofa sax xale du fa béjaaw ndax xale ya duñ togguñ leen dara ba ñuy béjaaw di dem yooye waaye dafa bëgg wax ne njàqare ga fa ne métti na métti goo xam ne mën naa tax a béjaaw xaleel bu ndaw kon xale boo am 10 ans am 5 bu ba weexee fur ngir ak njàqare njàqare googa tiis na yàlla nag nee na njàqare googa mi ngi leen di xaar yéen yéeféeri bu ngeen gëmul sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla tofal ca ne inna haadihi naka aayaat yi nekk ci saar wi ak yu mel ni moom taskiratun ak waar la fa man chaa ku mu neex ittaxasa na jàpp ila rabbihi jëm ci boromam sabilan yoon kon nag soobu leen te yoon woowa inna rabbaka naka borom sa mu xam na ne annaka naka yow taqumu yaa ngi naafila addnaa lu gën a tuuti min sulusay layli ci ñaari sulusu guddi gi ma la waxoon aw nisfahu wala lu gën a néew genn wàll ga aw maanaam wa sulusuhu ak lu gën a néew sulus ba tamit yaa ngi koy naafila wa taifatun ak kuréel minel si nga xam ne ma ànd nañoo yow ña ngay naafila lu gën a tuuti loola wallahu yàlla yuqaddiru mooy takk lay la guddi gi wa nahaar ak bëccëg bi ma xam na moom yàlla ne an dégg nga ma xam na ne an lan tuxsuuhu yéen mënu leen koo takk ndax amu leen montoor waaye fa taaba nangu na tuub moom yàlla aleykum ci yéen doonte lam leen sant matalu leen ko tamit jéggal na leen ko léegi nag xooyafal na ko li la ko follee faqara oo naafila leen léegi maa tayassara lépp lu jàppandi rek min alquraan ci alquraan lu ngeen mën a naafila lu mu tuuti tuuti baax na ndax ma xam na moom yàlla ne an sa an sa yakunu xal si naa nekk min kum ci yéen mar daa ñu feebar wa axaruna ak ñeneen ña yadribuuna ña ngay tukki fil ardi ci suuf yabtaxuuna mbir moom na ña ngay sàkku min fadlillahi ci wërsëgu yàlla yi wa aqaruna ñeneen ña yuqaatilu na ñu ngay xeex fii sabilillah ci yëkkati diine yàlla ji kon nag wo naafila leen maata yasar lu jàppandi minu ca moom wa aqimoo na ngeen taxawal daal asalaata julli faratay bu mu manqué wa aatoo ngeen joxe zakata asaka bu mu manqué wa aqridoo na ngeen lebal laax yàlla xardan ak lebal xas nan rafet wa maa tuqaddimu lépp loo xam ne jiital ngeen ko li anfusikum mu ñeel seen bakkan min xayrin ci xiw tajiduhu fa yàlla huwa moom tamit xayran muy lu gën la ngeen jiital gën li ngeen bàyyi gannaaw wa azamu da gën a màgg ajran ci payoor wastaxfiru na ngeen jéggalu laaha yàlla inna laaha naka yàlla xafoorun jéggaleha kon la rahimun ku bëri yërmande la kon naafila gaangoog lii dafa ñëw folli la ca gannaawam yàlla ne maala la waxoon naafilal guddi gi genn wàll ga wala sulus ba wala ni ba yaa ngi koy def nag jàpp ne guddi gi nisif ga genn wàll ga jeex na fekk jeex agut wala sulus ba nga bëgg a def foog na jeex na fekk jeexagut wala sulusaani ba nga foog na jeex na fekk jeexagut ndax booba amu leen montor yi ngeen takkee dañuy xool rek ci biddiw yi xool ne guddi gi de war naa toll fii nangam fekk sa natt moom léeg-léeg mu nax leen saxaaba ya ñëwoon di ko toppandoor tamit léeg-léeg guddi gi nax leen yàlla na far naa woyofal loola léegi nag luwaay waay mënati rek ci naafila na ko def bu fi lii nekkoon ba léegi dana gën a métti de ba gën a wàll gi yëpp nga naafila ko wala sulusaani baag yooya waaye léegi dafa ne loo man rek moo tax kon a aaya bi na si si si say lool waaye xëy lekk-lekk ba suur ñu ne la guddi géem naafila ko ah dana xaw doy war waaye yàlla ko baax la faqaraw ma tayassara min alquran naafila dafa ànd ak jàng alquran mu far tuddee ko loola rek ndax naa naafila da nga jàng alquran mu far tuddee ko ko rek su ko defee nag mu ne man yàlla maa leen gën a xam euh, xam naa am na ci yéen ñu feebar suñ bëggee taxaw genn wàllu guddi du sotti am na ci yéen ñoo xam ne dañoo tukki bu la fekkee ci tukki na nga jekkee woon sa kër am na ñoo xam ne buñ xasee tukki génn seen kër rek yëg nañ ci seen yaram luñ yëgutoon ndax liñ soxla seen kër rek lañ ko mën a defee soo soo ko bëgg a defee tamit doo dana métti mbaa nga ñib si ci tukki bees naka noonu tamit am na ñoo xam ne ña ngay dem di commerce ji su boobaa buñ leen naafile dana gën a métti te man mii maa bëgg a woyefal ba ne la booy tukki sax wàññil naa la sa julli ya ñeenti rakkaaya far ko def maanaam euh, nga def ko ñaar moo tax sax ñi bëgg kuy tukki tukkee mu wàññi sax yow moom ak comme dañ laa xooyafal sax dañ lay xooyafaalal naafila gi soo ko defee nag mu gën a baaxati waaye boo ko bàyyee tamit togguñ la ca dara kon nga xam ne yàlla ku baax la waaye tamit faqara ma tayassara min alquran déggee nañ ci ne alquran doos la ku xëy rek war nga caa jël dara yàlla nee na boo feebaree jëlal ndax xam naa ne xam nañu feebar boo tukkee jëlal booy commerce jëlal alima an sa yakunu annakum maanaam maanaam xam naa ne am na ci yéen ñoo xam ne dañoo feebar alima an sa yakunu minkum marda wa axaruna yadribuna fil ardi yabtaquna min fadlillah waaye ànd loolu lépp terewul dee leen jël alquran doos la bët bu set rek fexeel ba jël si dara boo feebaree jëlal booy tukki jëlal boo nekkee sa commerce bi jëlal boo nekkee bureaucrate jëlal boo mënee jël maanaam ñaari xisib baax na boo mënee jël lu ko gën a bari baax na soo bokkee ci ñi nga xam ne semaine bu jot ñi wàccee kaamil tamit mu gën a baaxati na ko daan mag ñi tënkee famille bashaqin noonu lañ daan tënkee maanaam euh, na niñ daan wàccee kaamil buñ tëbee rek fatiha la ñuy déparé ña ngay teeree ji maida mooy miim gi buñ bàyyee koo maida ña ngay teeree ji yunus buñ bàyyee ko Yunus ñi ngay tere ji maanaam banu Israil buñ bàyyee ko banu Israil ñi ngay tere ji Shuara buñ bàyyee ko Shuara ñi ngay tere ji Qaaf buñ bàyyee ko Qaaf nag naasi la ñuy teree juróom-ñaari la ñuy wàccee kaamil dana teey te dana dana dana dal kon loolu nekk na loo xam ne lu ama am solo la am nañu ko tënk ci way ci kutubu tafsir yi ne bikrun uqudun yunusu subhana wa shuara yaqtiinu qaaf baana mooy loolu yaa ngi bàyyee ko maanaam baqara yaa ngi jëm ci xuquut mooy mooy maida bàyyi ko ca yunus bàyyi ko ca subhana bàyyi ko ca suara bàyyi ko ca yaqtin bàyyi ko ca xaaf bàyyi ko ca naasi nii la daan mag ñiy wàccee kaamil waaye ànd ak loolu nag am na ñoo xam ne ca jamonoy saxaaba yi am na ñu jëloon dog bii di ko def mag ñu bari tamit jël lii di leen ca roy ba ci suñ magi réew mi waaye am na ki ñoo xam ne nag dañoo tànn bët bu set rek ñu jàng benn kaamil ña ko daan def Ousmane Ibnul Affan la bokkoon Tamiimu Daari ca la bokkoon Abu Hanifa ca la bokkoon ñett ñi lañ bind ci histoire ne buñ naafile waan lañ daan naafile ba mu des benn rakka ab witar dañu commencé taxaw commencé ci maanaam alif laam miim ba ci mina jinati wa naasi ñi door a rukkoo sujjoot sëlmal bët bu set Tamiimu Daari daana ko def Ousmane Ibnu ko def ba tey tamit tabaarakallaahu euh, maanaam Abu Hanifa moom taabii la moo mag ñetti ña moo mag Malik moo mag maanaam euh, Shafii moo mag imaam Ahmad moom ab taabii la ñee ñee maanaam taabii taabii lañ waaye moom moom taabii la kon ñaar ñële ay sahabi yu lañ moom mii di ab taabii topp topp ndoroon ca loola di ko def kon ba tey tamit loolu baax na euh, waaye noo nee rek ba tey baax na yàlla moom euh, fexeel daal la yonent bi waxoon rek yàlla du yokkat ci fay leen yiw feeg yokkatu leen ci def yiw waaye loo cay def def ca la nga man diina ji kenn du ca xenu loo xattanut ngay naafi la bët bu set ñeenti rakkaa moo gënal yàlla su sa poos bi diisee nga def fukk léeg-léeg bu fa dara nekkul nga jëlal bu biir bi feesee nga def téeméer bu biir bi feesut nga far bàyyi ko moom daal seetal lang ca attan su ko defee nga yenn ko ta fexe mu sax ndax mbooleem xeeti jaamu yàlla yi ba ci gënal yàlla mooy bi gën a sax donte tuuti na bi sax donte tuuti na kenn ku nekk nag yaa gën a xam sa bopp balil insaanu ala nafsihi basira kenn ku ne bi nga attan xam nga ko kon ko rek te bu mu tax nag nga xeeb keneen ki nga xam ne yaa ko moom maanaam moom moo moom yaa yaa ko raw déedéet kenn ku ne loo xam ne yàlla yàlla fay la ca na